tey pour amal li nga xam ne moom mooy atelier fii eh, di ci càmbar di fi waxtaane lépp loo xam ne daf ñu war a may ñu génne fi ak benn plan de développement communal euh, plan boobu mooy li nga xam ne tey eh, mooy tëralin ak yoon wi nga xam ne commune bi war na cee jaar ci diirub juróomi at loolu nag euh, euh, li ñu ko may mooy dañoo sumboon forum wax si ñëwoon ngeen fa forum boobu bi ñu ci waxtaanee ministre de la gouvernance locale ak service su état bi yëpp ñëw kilifa yëpp teewe ko ñu waxtaan ci bañ fa jógee lañ fa jukkee ci ay xalaat loolu la ñu tënk ci kayit mu nekk terme de référence ñu ñëw liggéey ci avec les services techniques yi nga xam ne ñoom ñooy liggéey ak sous ak euh, service yi nga xam ne mu mel ni ARD planification ak euh, li nga xam ne moom mooy aménagement du territoire buñ ci waxtaanee mu ñu jur mu jural ñu li nga xam ne moom mooy terme de référence yooyu loolu lañ fiy waxtaanee tey ngir buñ fi jógee ñu mën a am këyit boo xam si ci la ñuy tënk lépp loo xam si dañ ko fas yéene liggéey ci suñuy wax loolu nag li ko waral mooy Sénégal ku ne xam na ni décentralisation nguur gi def ci def ay jéego ñu jël ay pouvoir yu bees jox ko ay sañ-sañ yu bees jox ko gox geex gox goxaat yi jël gox yëpp ñu yemale leen e, ci ci ci dayo ak ci melokaan muy ay commune ñëpp nekk ay commune amatul commune communauté rurale mais ci jamono boo xam si également Sénégal dafa am benn plan boo xam si moom la ñuy wax PSE plan Sénégal émergent muy tënk lépp loo xam si tëralin la doxalin liggéey ak ay financement ci wàllu développement ñun nag ñu bokk ci ci mouvement boobu ndax ni ko président bëgg ci réew mi te président gis-gisam mooy dinañu suuxat développement taxawal fi émergence mais émergence bi nañ ko tàmbalee ci gox gox goxaat yi collectivité locale yi ci seen bopp am rôle bu am solo boo si dañ ko ciy joué. loolu nag ñu nit dañuy fexe ba li ñuy liggéey méngoo ak loolu pour que bu càmbar jotee ñu du ñu ni émergence am na fële waaye meewaan ñoom bokkuñu ci ñu nit ñu am ay réalité yoo xam ne si dañ ci bëgg a déparé ndax gis ngeen ni usines yi bëri na fi. gis ngeen ni eh, wàllu artisanat ak ñiy ràbb vannerie mi ngi suñu gox gis ngeen ni wàllu mbay ak wàllu eh, càmm aussi lu am solo la foofu donc ñu ni nag nañu fexe ba programme bi ñuy tëral di plan bi na tënku ci activité yooyu te bu ci nekk ñu génne li nga xam ne moom mooy jafe-jafe yi acteurs yi ci nekk bu ñu xoolee xool lan la ci état war a mën a jël en charge lan la ci industrie minière yi war a jël en charge ak it lan la ci collectivité locale bi xaj na dooleem bariwul mais lu mu ci mën a jël moom it en charge bu ko defee ci diir boo xam ni danañu ko euh, décider euh, tëral ko dinañu may ñu mën a am ay jéego yu am solo ndax xam ngeen ni Mewane jafe-jafe yi bëri na euh, lépp matul yaakaar naa loolu commune Sénégal yi nga xam ni ñoom ñoo am li ñu soxla yëpp amul fan yi ngeen gis ngeen am population seen bopp dem nañ ba jóg di marche pour ñu defar leen yoon boo xam si dafa bàyyi ko Pire romb Mewane dem ba Daya Ndiop euh, sous-préfet bii taxaw bind na ci dem na ci fu nekk ñun ñii aussi bind nañ ci dem nañ ci fu nekk kenn ci ñun arrêté gul euh, ay jéegoom mais population yi aussi xañ na yàkkamti nañ euh, à la lu jaadu la mais nag ñu xam ni commune bi amul moyens yi mais que dañ ko war a wuti rek te lii bokk na ci li nga xam ne tey moo ñuy may ñu xam moyens yi fu mu nekk. ak ñan ñoo ñu war a mën a jàppale ak yan service su état ci ñoom la ñu mën a sikkandiku ak it yan ressources la ñu mën a yaakaar pour que liggéey boobu euh, ñu amal ko. ni mu jaadoo ci wàllu yoon noonu la jaadoo ci wàllu artisanat noonu la jaadoo aussi ci li nga xam ni moom mooy wàllu formation ndaw ñi parce que bu ñu nee usines yi dañu bëri foofu ñu ni lan lañuy ñuy liggéey ñu ni wàllu mine. gis nga ni sax ni li nga xam ne moom moo di courant bi ñu ngi koy togg foofu léegi avec la centrale solaire bu war a produire près de trente mégawatts mais yëpp dafay baax formation ndaw ñi ñu jëmale ko ci fànn yooyu nga xam ni usines yooyu ak centrales yooyu dootuñu soxla dem di jigaani ci yeneen gox mais d'œuvre bi nga xam ne moom lañu soxla pour ñu liggéeyal leen donc loolu aussi dañu jàpp ni benn ci stratégie yi ñu bëgg a tëral la pour que euh, suñu commune aussi mën a profiter wu justement de la présence ci de, de ces de minières waaw mooy ñu gën ñu jàppale ndax jàppale bi gaa door na euh, nit da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay wax li nga xam ne moom moo am ñu ngi ñu jàppale euh, commencé nañ depuis deux ans yaakaar naa Euh, avec le concours de du représentant de l'État ak euh, waxtaan yi nga xam ne sumb nañ ko am na ay jéego yu ñu def jéego yooyu moo ñu may tey euh, GCO chaque année am na lu muy dugal ICS sax tàmbali na di dugal ah ñuy laaj aussi ñeneen ñi nga xam ne amaana ñoom ñoo war a ñëw it ñu jaar ci yoon boobu mais du tere aussi ñu ni li ñuy jox baax na mais bu ñu sañoon ñu yokk ko ndax nag xam nañ ni c'est vrai am nañ ay charges parfois. dinañ am gàll dinañ jànkonte ay jafe-jafe mais jàpp nañ ni euh, seen loxo ci biir commune bi war na mën a gën a am solo ñi ngi jéem ñi ngi def mais jàpp nañ ñi li ñuy def par rapport ak li nga xam ni war nañ ko mën a def euh, xaj na euh, tout tout est néewandi na te am nañ yaakaar ni bu ñu gënee waxtaan ak ñoom bu ñu tënkee kayit bi ba wan leen nag de façon très claire que lii mooy suñu ay objectif horizon bii la ñu jëm yaakaar nañ ni dinañ gën a sawar pour dugal ci koppar que ñoom aussi je pense que bokk na ci li nga xam ne moom mooy seen stratégie ak lii li li li li lii lawal seen politique di ko ñoŋal communauté yi nga xam ne ñun ñoo leen toogal ñu yëg bu baax ne ñu ngi ciy dugal seen loxo euh, ñu di leen sant ci euh, euh, accompagnement boobu nga xam ne tàmbali nañ ko mais ñu ñaan aussi ñu gën ko yokk pour jàppale leen ci xalaat bu mu bu mu bëgg pour tënk benn kii gis-gis boo xam ne fii ak ñaari at ñetti at ba jëm cinq juróom at maire bi dina si mën a sukkandiku pour bépp liggéey bu mu war a def pour gën a rafetanal toogaay ak euh, nekk ni doomu aadam yi nekk ci commune bi visi loolu mun ci am xel xel bu xel xel bu leer ak xel boo xam ne dina ko mën a jubal ci coo xam ne ci bu koy liggéey dina mën a leer léegi nag en tant que euh, nga xam ne dañuy yebal ci wetu mairie bi pour ñu ñu mun leen di leen jàppale di leen xelal aussi ñu ñëw bokk ci jataay boobu euh, pour que euh, kayit boobu xalaat boobu ñu mën a ñu war a ñoñal mu gën a mun a tegu ci yoon dëppoo ak loi euh, charte réew mi te aussi mu dëppoo aussi ak bëgg-bëgg askan bi parce que am nañ lu ñu lu ñu xam ci bëgg-bëgg askan bi ñoom aussi en tant que élu et maire représentant de la population am nañu lu ñu xam ci bëgg-bëgg askan bi ñu boole suñu xel boole suñu xalaat tënk ci benn kayit boo xam ne fii ak ñaar ñetti at bépp bailleur mbala état su mu nee buggee investir dara ci commune bi dina référ dina basé wu ci document boobu mu gën a mu gën a gaaw loolu mooy solo ndaje bi te maa ngi ciy remercier vraiment maire ak équipe municipale am gannaaw bu ñu organiser forum daaw bi forum économique social bi bi nag mu la parce que bii mooy bii moom mooy moo ñu may ñu ñu sóobu ci liggéey bi képp ku ñu mën a képp ku ñu bugg a dimbali képp bu bëgg a dimbali mairie bi mu jaar ci yoon bi comme ça développement émergence bi nga xam ne président la mu ngi koy mu ngi ciy woo bépp kuréel bépp Sénégal bi nekk ci réew mi ñu ñu laloo ci émergence boobu comme ça Sénégal gën a mën a euh, développer.